i am nañu mbekté jakkalo ak yeen indi len reportage bu xamantene dafa jëm si walum wër koor ah, té nak ñu ngi dugg fi nga xamantene mom moy marché ci leen seeti ñi nga xamantene ñom ñoy ah, jaay yap ñi wax ñu mbir mi fu mu tollu nii ndax ñu ngi gis ay client mais aussi ndax ah, yap bi fu mu neewon foofu la nek wala dafa gën a ba taxna rek am nañu mbekté jakkalo ak yeen surtout wax ci terrain bi leen indi reportage bi le wala señ bi ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay wala fekk na ngi la sa place fi marché Tilène Eh, di jaya yàpp mbir mi fu mu toll si koor bi ah fu mu toll de mom affaire bi mom wax deug yalla dafa manqué ah fu mu toll amul mom li nga dong am par ben jour mom presque fu mu toll par 4 jours nga koy amul dafa seer tam doxul parce que gaay gis nga depuis bi nga ñëwee nii welee gis nga li fi nek presque ay gënal jënd ay parce que dafa ser te bolé ci xalsi amul non bu fekkente ne xalsi amul affaire bi du mëna a non euh manam bu ñi euh, déglu si wax euh, d' abord nga xamanté mom moy yàpp bi si bopom mom mom mo manké mom mo manké parce que fu muy joggé nak gi dañu dañ joggé fi bé Mali fi bé Mali nak gi dañu dañ joggé foofu di ñëw fi mais gis nga problème bu am non Mali fu mu toll nii gars presque lu nekk biir Sénégal kese kese kese <laughs> loolu du doy surtout waxatuma la nord bi bu soré nawet bi yëgagul lu ñuy lekke bariwul parce que pour nga mun a jaay say nag doo ci mun a am dara nag bi du mun a duuf du mun a am yàpp bu baax parce que presque pour nga mun koo jaay loolu xam nga ne boo ko jaay presque sa perte la loolooy indi mankam bi parce que noor bi sor na nawet bi yëgagul lu ñuy lekk amul pour nga mun koo jaay du yomb boo ko jaayee léppay ru tax di koto koto comprendre nga affaire bi te ak guiné ak Guinée Conakry tam nag yi dañu leen jógee fo di ñëw fi ñun xam nañ ci dara mais affaire yi fu mu toll ni bul comprendre lépp jaga so ak feebar yi jum frontière yi comprendre nga ak euh, amna lu bari lo xamantene aussi ñaka lekolo lekkaloo état bi ak yeneen état yi xam nga problème yoy yëpp muy fofu tax affaire bi gëna manki fu mu toll ni Kolda am na benn suma xarit léegi léegi nii la jógee suma taabul fii nee na depuis weer koor bi bu mu commencé ñoom gisuñu foofu yàpp te beneen luuma bi bu tudd noonu saare yo ba luuma bi foofu la nekk yéen yi foofu la ñu jëlee nag yi ñu indi ko fii parce que dañuy préféré ñu indi ko fii ñu jaay ko fii moo gën jaay ko foofu parce que euh, kilo yàpp Kolda ñu nar koo jaay foofu ay deux mille cinq cent nga nar koo jaay fii trois mille cinq cent te même boo ko jaay fii trois mille cinq cent taxul nga génn xaalisam boo génnee frais yëpp nga peese poids bi yàlla xam ne nag bi du gën a li nga ko jëndee gis naa ku ci perte ci nag gi suma diggante gi la lu ëpp cinquante mille francs boo reyee nag gi pour nga am pour nga mën a dundal sa njaboot nga nar ci perte cinquante mille francs lu wala lu ëpp cinquante mille francs xam nga loolu boo ko waxee bu dul koo xamante ne xam na liggéey bi du ko gom sax du ko gom mais ñun ñii nekk ci liggéey bi nga xam ne dañuy rey nag gi peese ko xool xam bi lii la ñu joxee poids bi lii la ñuy jaay client yi nga xam ne yow poids bi lu ñu la ko joxee da nga perte nan ngay def xam nga loolu dafay métti te boole ci encore xaalis amu ci dëkk bi loolu kenn bu mu la ci nax kenn bu mu la ci nax grand képp ku daan jënd fii fu mu toll nii boo xoolee kilo yàpp trois mille cinq cent ñun fii te bu njëkk ba man bu may dugg ci yàpp booba kilo bi mille deux cent la woon mille deux ñun dañ koy jëlee mille francs ñu jaay ko mille deux cent mais fu mu toll nii xoolal fu te boo peesee tànk bi am na zare falan li nga fa nettoyé lu bëri loo xamante ne bul comprendre de cent yi nga fay yaakaar cent franc cent franc yëpp ci nettoyage bi lay dugg bu gaawul dox yàlla xam na da ngay fay courant dangay ngay daj ak leneen bul comprendre ñun ñoo gën a sonn parce que ñun ñooy daj ak population bi ku am lu tuuti day ñëw mille franc comprendre nga neuf cent ay liibar ak genn la liibar pauvreté daal ñun ñun daja daj ñoom mais borom nag bi mu ngi toog fale dañuy dajale ay quatre cent mille cinq cent mille sept cent mille yàlla xam na fekk xaalis bi motu pour nga mun koo verser borom nooy def borom nag bi nga verser ko moom tam ci boppam xaalis bi motul da ngay gis mu gàddu fii sept million et quelque wala huit million billaahi bu demee mu ngi jaaxale parce que bu wersee xaalis boobu est ce que borom da koy la mën a lebalaate parce que lu mu ko jox fu mu ko indi dafa perte xam nga affaire bi dafa gën a métti affaire bi dal problème bi mo ngi non kon dal si gàttal moy nak manké na mais aussi client yi ñu comme niñ ñu daan ñëw mais ñu aussi lu bari non non duñu mëna jënd nonu parce que da ngay xol fi client bo xamantene dafa ñëw pour nara pour indi de ki 1500 yaakaaroon bu ñëwee dina am libar. mu fekké libar bi 1750 la day obligé jënd gëna la libar gëna libar lay obligé jënd té bu jëndé lool du ko doy dara mais ñaka a xam nga affaire bi mom mu ngi rek. mais nag wax dëgg yàlla moom xam nga bu fekkoon yàlla may nañu doole comme yeneen réew nu ñuy def fekk dañuy yar état bi da cee dugal seen loxo di yar ay nag yi affaire yooyu xam nga boobu affaire bi day neex parce que da ngay gis fii ay viande importée te gars yi dañ ko jàpp fi comprendre dañ koy jàpp fi ay ganaar importé lépp mais parce que loolu dafa yomb te en plus ay forod lay ñëwee man na wax dëgg yàlla lool du ma ko jaay parce que xama fu mu jógee xama fu mu jógee ñun dal ñu ngi ni rek ren di débrouiller rek luñ ci gis dal ñu japp ci rek amuñu pex parce que fi nga japp fi nga xam fofu rek ngay mëna japp lepp lu ci mën tamel fofu rek ngay mëna a pour mëna am sa sutura waaw parce que do mëna sacc do mëna mën fen ci li ngay yëngu fofu ngay suturaw yalla nañu yalla jàppale rek mais ñu ngi ñaan vraiment ñi ci yalla jital ñi ci yalla may doole nañ ci def sen taxaway nañ ci def sen taxaway parce que yalla mo leen jiital yalla mo leen jox yàlla moo leen dénkaane ñun ñii nga xamante ne amuñu doole te population bi yëpp ci lii la ñuy ñëw jënd ñi am doole yi nag buñ jàppee ah xëy na yàlla def gën cee def jàmm comme yenn réew yi gën a développé rek yàlla nañu yàlla jàppal. allez merci beaucoup sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi fay. fàttali ma tur bi. man Ibrahima Faye laa voilà fekk nañ la sa place ngay jaay li nga xamante ne moom mooy la lañ a jàpp euh, si li nga xamante ne moom mooy euh, euh, liggéey bi nga xamante moom ngay def. waaw liggéey moom bu weesoo sant yàlla moom liggéey bi nekkoon liggéey boo xam ne liggéey bu doy waar rawat na jamono ji ñu nekk nii jamono weer koor nga xam ne yàpp yi dafa gën a yokk dafa gën a yokk nag yi amul instant nag yi dafa cher te xam nga sóoya bu demee bay jar trois mille cinq cent quatre trois mille huit cent ba quatre mille francs xam nga loolu day xaw a mel ci population bi quoi instant bi xaalis amul bon nag amul yàpp cher na doy na waar daal ci weeru koor bi malgré lépp yokku na mais rawat na yàpp te instant bi nii may wax ak yow nii ginnaaw sax amul ak fête yi ñuy dëmbal nii dina xaw a métti lool ci ñenn ñu quoi franchement mais ñun moom ci suñu côté moom métti na suñu ñun trop trop trop trop parce que fu mu toll nii boo xëyee pratiquement boo xoolee da ngay jël sa xaalis jënd jaay doo génn xam nga parce que yàpp bi dafa cher. Mm-hmm. xam nga te xam nga ne yor produit boo xamante ni bii nekk na produit boo xam nga war na mën a traîner suñu loxo quoi bu fekkee da nga jël sa produit ñoo takk ba pare xam nga a koo jaay tamit xam nga kooku mm-hmm. moo waral nag toujours bon ñi ngi xam rek euh, lancé gars yi jàpp leen ci wàllu xam nga rek élevage rek affaire yooyu parce que nag amul bon ak crise bu Mali bii nii tamit xam nga ñoo amaale impact ci liggéey bi nii vraiment sentir nañ ko met na trop trop trop yàpp cher na xaalis amul. lu yàlla xam doy na moom. parce que boo xoolee boo xoolee kilo yàpp bu demee bay jër quatre mille franc kooku client bi boo amee dépense quatre mille cinq mille franc yow doo ko mën a jëndee kilo yàpp toog xam nga yow boo amee benn trois mille franc dépense quatre mille da ngay obligé xool noo koy yaxaanalee ba ñëpp mën cee xëjoo du noonu. waaw instant bi ku sañoon vraiment da dundee lu baax da dundee lu lu lu neex rawat na ci weer koor bi mais tam fekkee yow sa loxo jëlu sa poste tamit loolu tamit benn affaire la loolu rek la mais fu mu doon wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ nag. ñu ngi ñëw ñu mën ñu ngi ñëw vraiment ñu mënul tamit am nañu yéene ji waaye nag euh, lu gàttal daal métti na trop ci gàttal métti na trop trop trop. kon daal fekkente ne am nañu lu ñuy ñaan autorité surtout si li nga xamante ne moom mooy ubbite frontière euh, diggante Sénégal Mali ak yeneen réew ah, pour euh, ñi indi li nga xamante moom mooy njur yi mun ko indi comme ça ñii di jaay yàpp aussi ñi mun a am lu yomb jaay ko client yi. waaw loolu moom bu amoon moom moo ñu gënal ndax li ñu naan ay ay yem ci boppay borom Euh, crise bu Mali bi ak embargo bi dafa daf daf noonu laalaaj ñun ñëpp ñu Sénégalais su mu doon ni métti woon na mais gën naa métti parce que bu ñu tëjulee ñu ngi doon taaba taaba mais bu ñu tëjee nag affaire moom gën a catastrophe parce que boo xoolee doo jël sa xaalis di ko dugal ci loo xamante ni bu ëllëgee euh, sa xaalis da des waaw boo xoolee boo xoolee euh, bu buusee xaaj gi yëpp dañoo toog ndax boo fekkee da ngay jël sa xaalis dugal ci benn nag nag boo la jël trois cent mille ñu jaay la ko cent cinquante mille kooku xam boo jëlee benn ñaar yoon dootoo demati loolu la loolay problème bi seeraabee ko waral nag nga fekkoon amoon na kon mën naa bañ a seer war na dañ ko jaay prix buñ ko daan yàgg di jaayee waaye ren ji moom wax dëgg yàlla moom affaire boobu laal nañu trop trop trop trop trop laal nañu trop sax na trop si ñun waaw na trop merci Ibrahima Faye ñu ngi lay jaajëf euh, mbokk yi ñu ngi si client boo xamante ne aussi dafa préféré garder li nga xamante ne moom mooy anonymat euh, ñu fekk ko aussi mu ñëw jënd li nga xamante ne moom mooy euh, yàpp soxna si maa ngi lay nuyu voilà fekk nañ la fii nga jënd yàpp lan la ñu mën a jàpp si nga xamante moom mooy euh, njóogu euh, yàpp bi nga xamante moom ngeen di jënd fii. yàlla comme ni mu ko waxee rek euh, ku ma fekk fii sama mag la sama client la comme ni mu ko waxee yàpp dafa seer moom wax dëgg yàlla dund bi métti na dund bi métti na yëpp la ñu yokk weer koor bi mu commencé ba léegi munoo lekk lu baax munoo lekk yàpp du kiwis du ginaar lépp a seer lépp a yokk wax dëgg yàlla loolu moom métti na weer koor bi ren bi moom dafa métti dafa métti wax dëgg yàlla comme sama mag bi lu mu wax rek lépp seer dara yombul léegi loo dem si marché bi rek dañ ko yokk lépp a seer doo loo mën ta yóbbu sa xaalis sa du doy wax dëgg yàlla dëkk bi dafa métti dafa métti xaalis amul dëkk bi dafa wow loo bëgg jënd pour ndogu sax doo mun wax dafa métti dafa métti waaw bi war na xoolaat nag bu baax sax waaw da nga amoon habitude euh, di di di jënd yàpp euh, nga ñëw par rapport ni ko doon jëndee ak reen gën a yokku waaw bu bu ma doon jënd taam ma ko doon jënd yàpp dafay yomboon waaw mun nga toog ñaari fan ñetti fan sax nga lekk yàpp waaye léegi mënatoo ko lekk parce que soo ñëwee loo indi ñu ne yàpp bi dafa yokk yi sew yi tamit dafa yokk amul daal léegi lu yomb bu njëkk ba moom loo indi loo ñëw pour jënd rek dafa yomb waaye léegi dara yombul dara yombul wax dëgg yàlla lépp son seer sonn nañu nag wax dëgg yàlla sonn nañu dara yombatul léegi da ngay defar sa ndogu ba mu baax waaye ren moom wax dëgg dafa dëgër mënoo sa def sa ndogu ba mu baax comme noo ko doon defee xaar wala li ñaa ñi nga xamante ne ñoom ñooñu mën a jàppale euh, comme ça ñi mën a jàppale ñii di jaay yàpp comme ça njóg yi gën a yee mooy transport nag yi euh, fu ñuy jëndee nag yi si dara yi affaire yi mu mun a yomb si ñoom nañu wàññi nañ ko wàññi daal ñu ngi jàppale ñii di nag yi ak ñii di jaay nag yi tamit nañ ko wàccee ñu yombale ko jaaykat yi tamit sonn nañ wax dëgg yàlla jaaykat yi tamit ñu ngi góorgóorlu xam nga ñoom tam foofu la ñuy dundee foofu la ñuy dundee wax dëgg yàlla ñoom tamit ñu ngi koy jëndee day seer ba pare ñu bugg a jaay nit ñi lu yomb loolu tamit ñoom tamit duñ ci génn parce que seen lépp foofu la foofu la ñuy dundee foofu la ñuy fayee courant foofu la ñuy fayee ndox waaw nañ ko yombalal daal ñu jàppale leen ñoom tamit jëndkat yi ba dëgg yàlla jamono bi dafa métti nañu jàppalante nañ ko wàccee ñu yombale yëpp. waaw mbokk yi euh, li lañ leen indi loon si li nga xamante moom moo jëm si wàllum njaay yàpp si weerum koor bi euh, kon euh, di leen jox dig daje si beneen vidéo indi leen ak beneen reportage si yeneen activités yoo xamante ne ñu ngi jëm surtout si weerum koor bi nga xamante ne moom la ñuy nekk.